Mbàkke mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane. boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke nekk ci Touba Darou Minane. ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28. gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye. ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew. ay jumtuwaay yu am qualité dëppoo ak bépp norme bu boulangerie di laaj. li ci gën a yéeme. cet gu mat sëkk lañu àndal ci seen liggéey.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 fanweer fan yi man fépp si laa koy wooree wenn mu bu laay nekk doole ju bari tëcc rek mbaa ma tëcc ba ngeen moom ana ngeen bisimilah barke Cheikh Fatou seen digg suñu boobaa këram. waaw Tafa moom fu mu nekk tey. togg rek lay def. Aliou yaa xanaa woon ci doon reer. ah non yii. Aliou yaa li li ngeen reer. Aliou yaa waxoon doon reer tey. dañuy reer tey. ay Tafa ngi nii sax ñëw na. Baye Abdoulaye moo gën a ngi di seen ginaar ñi ak seen wér di ko lekk. ñëpp a dem bàq. ñu de xaaral ko rek. waaw tabax la yoon yow. waaw ñu ngi julli kii far daanu. bakkan la bakkan bi jël suufa fees teel na. Ah, ngeen di toog amu toogaan. yaaroo xëy bi mu nga yóbbu rek. ay am na toog. waaw lii gën a gaaw. <laughs> Baye Ablaye Guèye ak démb mu jënd boog dee ginaar gi laa di jënd Baye Ablaye Guèye dafa naa ne baax ma fanaan ci ginaar yi la xool bi gën ñu doq doqaaral doy ñu damaa fiis ki moom ma ko bokkal na ah ay ma ci jëm su mu di reer. yàgg naa la soxla gëm yàlla. tënk yëpp ci bàyyi tabax tabax du génn. waaye génn wuñ sama nijaay ah, tax bi. ay eh, tabax wuñ sama nijaay. te hmm? damaa yemaat sa yow. kooku muy mel lu law ba yett ba wér. tabax yi eh, kaay eh eh képp. Eh, tax bi. Ah. ni nga wax ne moom man damay reer de. man damay reer de. yow tabax sa fen lan moo la ci neex. man damay reer damay reer damay reer. waaw ni yaay. waaw ni yaay xool lii ni yaay. bool bi Tapha lekk na ren bi xool Tapha dafa lekk na lépp ren bi jeex na. waaye Tapha fen yi nga doon fen yëpp pour lekk ginaar yi taxul. lekk na lépp ba mu jeex. lépp ah yi nga pour lekk ginaar da yëngal aras li gën a bon ci ci yow doo góor sax yow. waaye loolu taxaw yéen songu leen kii door ma ko war a bàyyi bi laa xam ne ay mbiram ko dafa ñëwaat yow sa yaram yaramu fen nga ba ni pandeex reer bi ñu waroon a reer lekk ko hmm? ah, li nit ñi naroon a reer nga ko da jàpp ni yow fii ak 20 jours lekk du dugg sa gémmiñ gi hmm? ñaar fukki fan dootoo wanati fii ci kër gi bu soobee yàlla da ngay baaroola di mën a fen dinaa la yar ba nga yor yow doo fi lekkee waat bu soobee yàlla yow Moussa Ba eh! yow laay waxal yow la àdduna moo la jaral ngay fen ngir reer nijaay ba ma xëyee fajar laa roose garab yi xiif mar xanaa xamoo li ci fen yow yow ñi woor ba ngoon li ñu fen la suñu borom gën a araamal ah, hmm. heure boo feneen day ak aras ak mu toll day dem ba ci aras ne ko man maay fen diw ak diw doomi diw ak diw Moustapha lekk lekk yi rek dina rey nit surtout ma bëccëgu wee ndogul koor li jaamu yàlla yépp xiif ba toog war a sukk di ndogu ngay fen ngir bëgg a lekk loolu Moustapha eh, yow laa waxal yow mm, waaw man sa man sa yaay diw yi ngay ñàkk sa def sa jëf yi ñàkk fayda yi ngay melaw ñay nii ci kaw ni ñi. yaa sa yaay sa jigéen mais yow laay waxal. te yow laay waxal yow. nit ñu nee na seen baay laa nuru seen baay nii la toll. waaye yow li bàcc wax rek fii vingt jours yow doo nekk ci kër gi. doo génne la kër gi sax laay def. dama dama fekk kon oh, na lépp. waaye léegi ñëwal génn kër gi guddi gi xalaatu ko.